mbokk jullit di déglu dooli sant yàlla bu di santaat yàlla bi ñu mayaat kàttan may ñu ba ndeel si di defataane fajar di ko alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasira alhamdulilahi kulli haalin moo ñu ngi sant yàlla sant bu amut ab amut di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak sahaaba mi ak képp koo xam ne yaa ngi topp bi yawmal qiyaama ni ñaan yàlla ñu yàlla boole si yàlla jaama inde ko fanaano ko mi jaama yokko si toon ஒரு இறமை எல்லாமே சாப்பிட்றான் எல்லாம் எல்லாம் புக்க சபக்கு எல்லாம் எல்லாம் டெலிவரி சபக்கு எல்லாம் எல்லாம் சொல்லும் போவான ஆஃபியா எல்லாம் எல்லாம் சொல்லும் போவான ஆஃபியா எல்லாம் எல்லாம் சொல்லும் ويربو عند عافية يلا نيولا مي عافية مي كم بولم جولت واي جولت جولت الله يرى يلا يرم لين يلا يا تسن بامل يلا تسن بامل منك روضة من رياض الجنة يلا دلل الجنة في الدوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلم عليك ربك وإن نبي يلا ساملين njaboot bi yaa egut yàlla na si yoonu siraatal mustaqim mu jël si fitna ak leen baax jigéen ñi tamit yàlla sàmmaleen aar leen yàlla dafa ñu xéwale àdduna xéwale àlaxira mu jëm ñu waa li nga xam ne mooy warugaru waajur si doom gannaaw bi nga xam ne waxtaane woon nañ warugaru doom si waajur mooy ne gannaaw bi ko tànnalee fi mu ko a tànnalee ndey muy <clears throat> comme ni koy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jàngale si ñeenti eh, mbir yooyu nga xam ne mën nañ si takkee eh, jabar waaye bu si gën am solo mooy diine ku taana borom diine rek ba nag sa gannaaw dafay bandal loolu tax mu ne nag bokk na si doom bi nga xam ne su juddoo bu dee doom bu góor la ni ñu ko waxee woon mooy reyal ko ñaari gàtt ñaari xar soo ko amee boo ko amoon nga def nga reel ko benn bési juróom-ñaari fan yi waaw bu dee ko góor nga yóbbu ko li nga xam ne mooy néegi góor waaw néegi góor su ko defee boo tamit bokk si yërmande bi nga xam ne ak cofeel bi nga xam ne yaa ngi ko am si moom dafa yow waajur bi nga nekk eh, li nga xam ne mooy dundaam ak coluwaayam yëpp yaa ko war a amee waaye tamit yaa ko war a yar yarem bu bu rafet rafetal yar bi ndik taana nga ko tur bu rafet yar bi dafa war a rafet tamit waaye nag war nga am ite pour xale bi jànga xale bi jànga am xam-xam waaye jàng bi si gën yëpp mooy islam comme ni ko yéndu sa salam mu ne man yuridillahu bi xayran yu fakkihu fi diin waaw yéndu bi salaam mu ne ku yàlla nama si yow yiw daf lay jox xam-xami diine bon xam-xam xam-xam yëpp baax nañ waaye xam-xam bi gën si xam-xam yëpp mooy xam-xam yi diine ndekku yàlla na ma lu baax rek xam-xam yi diine nag ne ku nekk si ñun war naa dem ba si university war naa dem si daara yu mag ya dem jàng déedéet xamal sa diine bi nga xamal li nga xam ne mooy sa waruga si sa diine xam naka nga jaamoo sa borom nga xam ne doo nekk di toppa toppaate toppati gumbo gis nañu di def nga ne naa def xamuloo la ñoo def ndax wér na ndax wérut dik loolu moo gën a bari suñ jamono ji loo tax bidaa yi bari waaw li nga xam ne lu ñoo taqlidul ama maanaam toppandoori gumbo nit ñi di def naa def waaye nag nit ku nekk war ngaa xam sa diine waaw xam li nga xam ne mooy farata yi xam li nga xam ne mooy sunna yi lii mooy xam lii mooy xam-xam waaw nag gën naa yaatu nag nga dem nag jàngi jàngi jàngi ba am yoo xam ne macha allah gën leerlu waaye li nga xam ne mooy basic bi maanaam li nga xam ne mooy bi fondement bi mooy ne war nga xam lan mooy farata lan mooy sunna loolu nag yow waajur bi si nga war a dunda dundal si njaboot si nga war a dunda sa njaboot te loolu daf la war yow waajur bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullukum ra'in wa an ra'iyatihi mu ne ku nekk ñu nag ab sàmm nga te ku nekk yawmal qiyaama ah lañ lañ dénk lañ la dénkoon nañ la ko laaj ndax nga doon sàmmee bon nag ku jàngalu sa doom ar alquran ak sunna nañ la ko laaj am na ñoo xam ne nag ñooy def seen kéemtalaay katan seen kéemtalaay yite si seen doom yi ñuy jànga yoo xam ne ay bidaa la amalu la benn foog ne loolu moom si diine fekk nekkul si diine loolu nag dafa war si waajur bi moom si boppam mu tegu si lii nga xam ne mooy alquran ak sunna bi nga xam ne moom lañu ñu sallallahu alayhi wa sallam bàyyee te mun a suñ ko defee rek dinañ mucc àdduna mucc àllaxira waajur war a góorgóorlu pour doom bi jàngal li nga xam ne mooy islaam waaye nag tireen ko maanaam tàggatal ko pour mu xam lii farata ak sunna ndax yàlla subhaana taala wax si alquran fi nga xam ne mu ñëwoon ne waajur li nga xam ne mooy ku jigéen day nampal doomam lu mot ñaari at wal waalidaatu yurdina awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa waaw mun naa ñàkk ñaari at waaye nag mag li gën a bari maanaam maximum doom war naa mun a nampa ñaari at doom boobu dafay gën a wér ki nga xam ne dafa nampa lu motul loolu loo tax yàlla subhaanahu ba ñaari at waaw mu ne kooku nag wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf waaw boobu nag yàlla di wax ne yow waajur bi ah warsagi xale bi ah kañ si yow la nekk colwaayam lekkaam dundaam yëpp yaa ko war a dundal waaw waaye loolu su amee xol bu rafet rek yàlla def la ko yombalal ndik yàlla njaboot ba mu teg sa loxo rek na la yombalal noo ko noo leen loolu nag ragal yàlla yaakaar yàlla óolu yàlla nag moola la see dimbale nga gis ñi nga xam ne amuñ njaboot yu bari lu ngay jooy léegi pour am njaboot mënatuñ ko am bu la ko yàlla war sagale rek xamal ne yàlla subhanahu wa am na lum la dencal te yàlla subhanahu wa taala du bàyyi doomi aadama neen lu tax yàlla subhanahu wa taala lu yëpp si bi nga xam ne mu ñoo wax ne si suratul baqara xawleena li man arada yutima radaatuhu waaw parce que loolu am na solo nampal dafa am solo nga xam ne léegi jigéen yu bari nangatuñoo nampal léegi lan la ñoo jox xale yi meew meew kaawan géet <laughs> meew boo xam ne kenn xamul luñ ko defaree subhanallah moo tax xale yi subhanallah dañoo teel a ponkal waaye xel nekku fa waaw dangaa gis xale ñu ne nangam nangam la am nga ne déedéet kii foogoo naa ne passé na loolu xoolal kii naka la de macha allah lan lañ ko jox meew boo xam ne xamul luñ ko defaree kaawan kéet meew subhanallah yàlla subhanahu wa mi nga xam ne moo jaarale meew si ween yaay si diggante sidit ak deret nga xam ne tey ween bu fees del ak meew boo ko dogoon tey meew du génn lanay génn deret waaye gisa kéemtaani yàlla naka la meew bu weex tal mun a génne si foofu nga xam ni soo ko dogoon tey deret mooy génne foofu allahu akbar allahu akbar bon nag ngeen xam ne loolu loolu bokk na si kéemtaani yàlla subhanahu wa defal doomi aadama loo tax yàlla ne nañ nampal suñ doomi ñaari at waaye jigéen yu bari léegi bëgguma suma ceer bi daanu du waaw duma ma nampal damay uti meew di ko jox xale bi loo tax xale yi mel ni rab yi léegi bari nañ yàlla ñu yàlla baala neexut a wax nag waaye loolu moo am parce que nangootu nampal ndik njëriñ bi nekk si nampal wérgu yaram bi nekk si ween boobu yàlla subhaana def ko si doomi Adama, nga xam ne tey nu ma ko waxee nu ma ko waxee rek boo dogatoon dogatoon cëri kooku meew du génn te bés bu nekk xale bi dina ci ndeewu añ si reer si njogonal si allah allahu akbar wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuha wallahi suñ doon toog fii di compter xéewal yàlla yi subhanahu wa taala li mu defal mënuñ koo jeexal mënuñ ko compter ba jeexal ko loolu rek bokk na si lii loo tax yàlla ne nañ leen nampal doom yi xakan jigéen yi seen warugar la pour ngeen nampal seen doom yi seen meew yi jox leen seen meew yi soo ñu nampa ko moo gën ngeen ay indi ay kaawan géet maanaam sunguf meew boo xam ne kenn xamul fan lan lañ ko liggéey wallahi loolu ku dem factory ba mu ko liggéey ba gis chemical si gars yi def di nga xam ne lii wallahi ak waajur ak yaay nu mu buggee doom su gisee liñ fa def du ko jox doomam du ko jox doomam waaye nag waaye bugg a àdduna tax bi nga ne man du nampal Waanti yaa laala waaneef wal waalidaatti yoordoota hawlaa daahuun hawleen eekaameleen waaw! Goordii nambal jiginni nambal. Bonna ayabii dina warra soonya warra nyaaha sun jigeeyee hakan kusee yaala may doonuu nambal ko dig loolu baala simmoo yaala subhanahu waan ta'a moko hoosee argaa waan waan bokkuu jullitee. waajur li ko war ci doomam dafa bari li mu war a xamal doomam bari na waaye li ci gën am solo yëpp mooy diineem mooy diineem loolu tamit xadis mu ne muru awlaadakum bi salaati inda sab'i wadribuhum bi ashara wa faariquhum fil madaaji' waaw suñ doom yi nañ leen commencé di leen digal julli buñ amee juróom at seven years juróom-ñaari at dañ war a di leen wax ne aca julli leen buñ demee ba am fukki at buñ julliwut nañ leen door waaye door bi mooy nan am na yu bari bi xale bi war a bugga pour nga defal nga ko duma ko def comme doo julli duma ko def loolu door la waaye doo ko door doori gaañ ko door koy lor waaye yar ko yonte bi salaa salaam mosuta doore waaye amoon na yar boo xam ne daf koy teg si bunti néeg bi ku kuy génn rek si yar bi gis nañ de al asa liman asa eh, yar de <laughs> pour ku kujaarut yo rek ñu cawla ko waaye yéen sallam musuta musu sallallahu alayhi wa sallam waaye nag am na nu yari sa doom doo ko dóor waaye yàlla nana dimbali si yar ko bon nag bu amee fukki fan fukki at war naa mën a commencé di julli bu doon góor a jigéen xale doon fanaan si lal bu ñu am fukki at yéen sa sallam mu ne nañ leen séparé waaw nañ leen tàggalate waaw buñ bokkati lal waaw loolu yëpp jàngale charia la loolu yëpp jàngale charia boo xam ne pour njaboot bu baax mun a am ndik seytaan mooy suñ noon te seytaan waxtu bu nekk mu ngi suñ biir kon bokk jullit yi yàlla ñu yàlla yaral suñ doom yi ñu yàlla yaral suñ doom yi ñu yàlla teg teg suñ doom yi si yoonu siraatal mustaqim yàlla muccal leen si fitna musiba balaa seytaan waaye yàlla boole ñu defal rabbana atina fi dunya xasana